c'est pour euh, lancer un appel un appel vraiment que je veux faire à mon nom personnel pour euh, soutenir l'initiative bi Femme en Blanc C'est une initiative euh, salutaire une initiative initiative pacifique ndaxte ay jigéen ay yaay ay ay ay sœur ay xarit ay jigéen ñu jàmbaar ñoom ñoo taxawal benn kuréel euh, naam sax kuréel boobu ñun ñi yéguñu ko waaye dañu jàpp ni loolu xale yooyu taxawal ñun lañ ko taxawalal parce que euh, ku ne jigéen rek euh, benn jigéen mooy téeméeri jigéen te jigéen ñi dañoo yàgg am taxawaay ci xeex bi ñuy xeex pour senegal ak xeex bu ñuy xeex ci combat bi góor ñi nag dama leen di ñaan du càgginu jigéen ñi ñoom ñoo porté combat bi wala jigéen ñi ñoom ñoo koy xeex mbiru jigéen la déedéet ndaxte ñoom dañu ne ay yaay lañu ay rakk lañu ay soxna lañu ay ay ay ay ay mokk ay mag lañu ñoom ñoo taxaw jàpp ne jot na ni xale yi te bir xalé yi am góor ak jigen mais ni jeunesse bi yëkëté initiative bi ñuy wax sonkérisation te mu jaxal aduna yëpp mu jaaxal àdduna yëpp léeg sax da ngay da ngay dem ba euh, mbir bi day fest ci sa xol ba sax da ngay faté ni lii li tax ñu diko ko wax euh, combat la en fait cri de cœur la nekkul euh, pour kaf wala pour ré mais c'est juste pour wone seen pas-pas ni ko xalé yi defee ba adouni bi yep disonkorize ou lege. Adouni bi yep disonkorize ou, yema tout sak, ti estadi. Euh, nam, nyongi dembe, teti ay stad, teti ay kompetisyon, mi lege, nyongi dembe, adouni wengel, kep, lway di def, dren kousonkorize. Lolo, net le djigen nye khalat, gisni li, manchallah, inisiyatif bou bakla. Nyongi nyom item, denyong am chel, khalatu, yekiti benin inisiyatif bou khamni, djam le wotey, initiative boobu euh, salaam lay woote te ku nekk mën nga koo def nit ku nekk mën nga koo def initiative boobu mooy lan mooy ñaan képp koo xam ni patriote nga citoyen nga sénégalais nga bëgg nga jàmm nga sol mbubb mu weex bisu àjjuma foo munti nekk nag foo mun munti nekk ci Sénégal moo xam dangay ngay liggéey liggéeyi moo xam xale nga moo xam mag nga moo xam jigéen nga moo xam góor nga foo munti nekk suba dañu la ñaan ak bépp àjjuma bi di ñëw nanga nga firndeel wone sa ñàkk d'accord ak tëj bi ñu tëj euh, seen leader ak seen ak seen ak seen yaakaar muy Ousmane Sonko mais tëj bi ñu tëj di santen di milliers de sénégalais yoo xam ni ci ci biir sénégalais yooyu seen ay boroom kër ñu ngi ci seen ay rakk ñu ngi ci seen ay doom ñu ngi ci seen ay mag ñu ngi ci seen ay jarbaat ñu ngi ci jigéen ñi ñooy woote loolu man nag su ma gisee ay xale ay mag ay jigéen yëkkati initiative bu mel nii damay jàpp ni sunu rôle ñun ñëpp muy teg ci suñu loxo ba initiative boobu dem di ko commencé ci sama bopp di ko commencé ci képp ku ma xam di ko commencé ci képp ku nekk force citoyenne di ko commencé ci bépp sénégalaise bépp sénégalais suba euh, lingeer yi ñoo la ñaan boo xëyee nga sol lu weex ay la yoween loolu yomb na ndaxte bisu àjjuma ñëpp dañoo aadawoo di sol lu weex bisu àjjuma ñëpp dañoo aadawoo bu ñu xëyee changé atu accoutrement kon nag foog naa ni jafewul li jigéen ñi di laaj ñëpp mën nañ ko te góor ni ñoo leen ci gën a war a jàppale donc Facebook bi yëpp dafa war a weex tàll wane jàmm wane salaam wane bëgg-bëgg bi jigéen ñi bëgg te jigéen ñi bëgg nañu seen réew changé mais bëgguñu deret tuuru bëgguñu ay bët tooy bëgguñu ay rangoon tuuru dañu bëgg rek mu nekk ci jàmm donc ñu ngi woote woote bi nag bu leen xool ban jigéen moom moo ko woote kan moo ci jiitu ñépp ñu bëgg nga xam ni ba mbir mi commencé ba léegi yéen ci seen kër yi mënu leen bokk ci xeex mi parce que da ngeen a ragal wala parce que ñemewu leen fitna wala parce que xamu leen nu ngeen di def ba bokk si suba dañ leen di ñaan ngeen boole ci seen bopp ku yeewu di dem marché solo lu weex kuy jaay solo lu weex kuy xëy solo lu weex koo xamante ne da ngay bépp activité bu waay di def bi bisu vendredi bi solo lu weex ngir dalal xelu yaay yi nga xam ne seen doom yaa ngi ci kaso yi nga bokk ak ñoom métit boobu ci benn moment bu gàtt pour solidariser wu ñi nga xam ni ñàkk nañu seen ay njaboot te lu weex loolu sax nag weesu na domaine politique weesu na domaine politique parce que Sénégal fépp a metti xale yi faatu ci gaal yi seen ay mbokk ñu ngi ñaan ngeen sol lu weex ñu bokk ak yéen métit bi lii xew Ngor ñu ngi ñaan ñëpp sol lu weex ñu bokk ak ñoom métit boobu lii xew ci prison yi ñu sol lu weex ñu bokk ak ñoom métit bi lii xew sabadola lii xew ci àll bi lii xew ci mbënd mi ñëpp sol lu weex loolu foog naa jafewul fol lu weex sol lu weex photo effectivement day xati saaliw bu ko defee ni xale yi di defee ba ni ñu leen di sentir di leen dégg suba bu ñu yeewoo Facebook beeg fépp ci Sénégal weex tàll tàll tàll

donc euh, ñu ngi koy ñaan yàlla ñu ngi koy ñaan te di leen demander ngeen di encourager euh, initiative yu mel nii ndaxte xeex bi yomb na yombul yomb na parce que bu kenn yëkkatee bu ci ñëpp jàppee rek mu oyof toll te ndam rek lañ ci am mais bu fekkente ne lu waaye di yëkkati rek kenen du ci japp wala du koy gisee nenen wala xalab ko du sotti kon ñun comme niñ ko waxee won rek ñu ngi encourager toutes les initiatives de lutte pacifique

nous voulons les féliciter di les encourager vidéo bi beaucoup nous ont mu gudd mais il faut ñu y ci félicitation Hein, li nga xam ne am diaspora sénégalaise partout nag parce que gis nañu en Europe beaucoup de marches pacifiques taxawaayu diaspora ñi nek France ñi nek ñi nek Espagne ñi nek Italie ñu ngi leen di Suisse Belgique, démb ñu ngi les di gis waaye mention spéciale

bëgg dem ci àdduna bi di fa am jàmm mënul nekk te gis nga nit ak ki yaakaar nit ak ki bëgg nit ak ki mu faale gis nga nit kenn du ko xeebal soxlaam nit kenn du ko xeebal bëgg-bëggam kenn du ko xeebal yaakaaram te gis nga yaakaar dafa foor ay nit mënuñu nekk des milliers de personnes des million de personnes am yéene ci benn doomu aadama nga bëgg jël nit kooku tëj ko ci kasu bi ràpp ba pare nag bëgg yow di wundeelu di dem di ñëw di am jàmm di dem sax ay shopping di dem ci adduna bi fu la neex nga dem fa ba pare nag fu la neex nga mobiliser ah loolu mënul nekk Sénégal gi sax li leen fi may jàmm mooy dangeen naa génnul ci mbedd yi doxantu ndax président Macky Sall ak ñoñam Sénégal gii buñ fi génnoon ci mbedd yi nii ñu génnee noonu euh, fële New York wala nekk ko ci bu public bo xamantene ne bokkut ak seen kër yi nga xam dañu ko barricade dañuy wax barricade ba ca France ba ca États-Unis dem leen doxantu ji fii nii Mermoz ngeen xol guddi gu nekk président day barricade bopam ay char lañuy tek ci buntu bedd yi teg ay ralentisseur certains diront c'est question de sécurité mais nit ki boo jiitee ay nit dem ba to leen war nga sétat sa bop

sénégal yi ñu dencal nañu leen lu ko ëpp dañ koo ñemewut a wax ndaxte nekkuñu ci dëkku démocratie nekkuñu ci dëkku démocratie bu Sénégalais yi nekkoon ci dëkku démocratie président Macky Sall may leen tuuti rek lan leen may ca ca New York <laughs> ah ngeen xam ngeen di gis buy mais xam ngeen ni Sénégal loolu amu fi dëkk yi nga xam ne nag yirifu leen leen moomu leen leen ñoo yirif seen bopp am seeni lu aw bopp nekk seen démocratie fofu bu ngeen fa demee da ngeen di sonu da ngeen di sonu parce que nak bu fi kenn wax kenn dara kenn wul kenn lu ñaaw ñun ñu prôner violence buñ ko défé ci jigéen nak buñ ko défé ci keneen wante jigéen ño xamni da ngeen ab sen lamine di xasté di sag di wax bu ñaaw di difamé nit ñi suba ba ngoon tegul leen ko fenn te li ngeen di wax xam ngeen ni sax du dëgg xam ngeen ni du dëgg mais da ngeen koy wax koku lu ko nit mëna mëna mëna layal waxante dëgg jigéen mooy respecté boppam jigéen mooy respecté boppam di def jëf yu am respect di taxaw taxawaay bu am fulla ak fayda di wax ci lu am solo di wax lu mu xam di wax luy dëgg di bañ wax ñu koy weddi waaye jigéen joo xam ne sos topp bàyyi jaamu saaga yaay jaambur saaga bàjjenu jaambur kobas ah dëkk bi nag nit ñi dañoo am ay njaboot ñi dañoo am ay njaboot te njaboot yëpp yemuñu am na ñoo xam dañ nan bàyyi naa yàlla am na ñoo xam dañ koy fajal seen bop génération boobu lañ toll voilà donc nak fi mom kenn ku ne rek li nga duuy ba mu fess mom ngay yenu da na ko nan dajj sa digg bop bi nga ànd ak mom dem ndax yow ya ko duuy ba mu fess ya ko duuy ba mu fess kon nak bir mi lolu kessé la ku nek na nga xol sa bop xol sa toogaay defaraat sa jikko defaraat sa toogaay te xamni nak adduna bi amul solo nguur gi dañ leen ko dénkoon ci jàmm ak salaam man damaa xamul lu waral fitne ji ak mermer yi yëpp ndax delloo luñ la dénkoon képp luñ la dénkoon delloo ko rek coow li yëpp ni ne kenn mënu comprendre ah kenn mënu comprendre wax dëgg yàlla Amina Mohamed kenn mënu comprendre xuppaati bi tëje bi xeex bi soo déggee yenn discours soo déggee yenn yenn yéene yi ah? pour lan

ngeen ut terme bi nuñ koy défé suba blanc bi ngeen ut nan ngeen koy défé terme comme yéen moom machallah lu ngeen dugg mu bax parce que da ngeen ci dugg ak yéene dugg ci ak pas-pas c'est à féliciter ma ngi leen di féliciter bu baakha bax di leen encourager di leen wax ne leen patriotes yi sénégalais yi yéen ñi nga xam ne taxaw ci xeex bi té nak on vous voit de ñun gisul leen ñu mais ñu ngi ci biir nit ñi ñu ngi dugg té li ñi dégg suñu xel yi suñu nopp dal na suñu xel sénégalais yi paré nañu sénégalais yi waaj waajal nañ sen bop sénégalais yi taxaw nañu kon nak xool leen la victoire est au bout de l'effort fi ni nak ciow li liy rek ciow li bëri rek les gens ont l'impression que affaire bi dafa riir nii dafa jafé ak jafewul waxon na len ko nak on n'a jamais été aussi proche du but mais nak il faudra se préparer waaw il faudra se préparer mais ne blanchissez pourquoi pas il faudra se préparer ndax nga ce que vous avez Vous yi tout yi après se de am vous mais jarul jarul jarul yakamti parce que ce pays là nous n'avons une majorité ba pare di ragal wala di tit te nak il faut il faut y croire il faut y croire majorité mo fi nek une petite minorité mo bëgg nek fi ci ci ci ci réew mi bëgg a nit ñi ci ay titel leen ci ay ragal leen te lolu nak mënu nek lolu mënu nek minorité nak bo xamni dañu am intérêt bu reuy motax ñu def sen gang def sen mafia waye gis ngeen euh, mbir mi ni muy démé les gens vont faire face, les gens vont se battre de façon pacifique, de façon démocratique. ku xalat leneen rek da ngay nax sa bop. ku xalat leneen da ngay nax sa bop. parce que fiñu ñu ni, on n'a pas le choix jéggi nañu riif bi bu yàgg Liñu daj metti na mu ngi ci suñu ginaaw. avancé rek Delu ginaaw mom, perte fuk yoon ak juróom-ñaar la kenn mënatu ko def sax ndax bo delo ginaaw sax yoon ba nga jaaroon nga dul gisati ndax màbbal nañu yoon yëpp gas ko ay kamp donc avancez rek avancez rek avançons hein, papa que merci pour ces cœurs blanches donc maa ngi xaar sañ-sañ maa ngi xaar sañ-sañ bu baax a baax ah maa ngi xaar sañ-sañ toujours rek Thierno Gningue toutes les marches sont interdites donc même ñi nga xam ne dañoo déposé woon marche ñu ngi leen di invité jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci initiative femme en blanc bi di ay jigéenu patriote des ay citoyens, qui yi nga xam beaucoup sax bokkuñu ci politique mais nous sommes lañu yu dajaloo gis ni dañoo war def ay action ñii ay société civile lañu ñii ay simple euh, femmes les lañu d'affaires lañu bokk les ay patriotes, nous avons ñoo initiative c'est à saluer et à soutenir donc soutenons cette initiative et puis on verra que nous sommes majoritaires en tout cas les femmes battantes on vous attend Nous, xaar sañse ñu ngi xaar euh, c'est même pas facile compliqué parce que dañ ñu ngi jëm ci gàmmu kon nak da ngeen di def rek avant goût avant goût gamu ngeen di def voilà donc ñu ngi xaar cocotte même yeen sax ci ngeen bokk Espagne bu len bàyyi dara suba na ñëpp nu ko ñëpp weexal weexal leen ko tal tal tal wéxal len ko voilà goor ni nak sama càmmiñ sama frère yi sama doom yi yéen lay gëna xaar voilà man nak ni ngeen ma identifier ci sañse yi je ngeen identifié, identifier euh, def sen ay euh, euh, en soutien avec des cœurs des cœurs blanches en soutien à ces braves mamans à ces braves femmes qui ont eu cette belle initiative voilà donc voilà Aminata Mohamed voilà yiw rek voilà, allah voilà defar leen ba mu baax Donc, ngi xaar donc maa ngi yemale foofu live bi dam leen namoon sax <laughs> moo live bi gudd mais dama naroon juste wax ci ci initiative Femmes en blanc bi mais euh, il fallait que nous nous wax nous euh, wax make <laughs> il faut faire beaucoup de bruit beaucoup de cœur demain euh, vraiment on veut voir la ville le Sénégal immaculée en blanc pour soutenir ñi nga yi en détention mais ñi nga euh, ñu ngi nekk ci difficultés mais aussi euh, une façon aussi pour les femmes de se sentir aussi valorisées dans ce combat parce que xale yi nangu bi surtout nangu nañ voilà nangu nañ ko dem ba sax niñ koy ak niñ koy nangu nañ ko mais euh,

ah surtout besoin des hommes donc ñi may woowee euh, bàjjen ñii di ñëw ah, ak ñi may wowe tata ñëpp daal ah, maman ñepp ma ngi xaar ah ma ngi xaar <laughs> merci beaucoup <laughs> merci merci beaucoup mais attendez-vous hein fani dinañu dinañu amna lu neex luy ñëw dinañ ci gëna wax voilà toutes les femmes en blanc et surtout tous les hommes tous les patriotes tous les patriotes suba moom ku ma gis sax solo lu weex duma wax ak yow voilà ku ma gis solo lu weex moom duma wax ak yow duma waxtaan ak yow voilà donc maa ngi xaar daal euh, blanc bi nas la capricieuse seen naa yow sama doom nga sama doom sama turandoo voilà donc na weex tàll rek na Dakar weex tàll tàll tàll tàll tàll tàll su àjjuma la voilà na weex na lépp weex tàll tàll tàll na weex weexal leen ko rek na gën a weex weexal leen ko tàll ah, blanchir def voilà <laughs> tout en blanc voilà tout en blanc incha voilà donc euh, blanc rek blanc rek tal tal tal blanc voilà bien sûr euh, Youssou Camara ki safoko ko ko bis di ça ba ju tegal la di la yow y'a perte voilà Mame dem c'est partout partout on veut du blanc partout dans les marchés dans les boutiques dans les sociétés partout képp ku suba solal blanc dem voilà en blanc blanc

ko defee ñu xam ni ñu xam ni euh, on est majoritaire Omar Gueye lan nga wax nga ne répond ma lan nga wax <laughs> amna ko koo nak euh, euh Seydou Nourou nga tudd yo xam nga lan motax tax ma bàyyi la ci sama message Seydou Nourou yow c'est parce que da nga nduroo sama mak non lu tudd mais gis na la nga def ben message euh, je crois que d'autres ko defati hein parce que dina la supprimer ci suma liste d'amis parce que moi j'aime pas les gens incorrects <laughs> voilà donc Omar je ngi nga li voilà donc blanc j'adore Je commencer déjà avec les cœurs blancs vraiment merci j'adore beaucoup euh, Omar nga Je li nga voilà donc ngeen ngeen sol euh, lu photo euh, dinañu neex torop ngeen dugal ko ñi nekk diaspora tamit ngeen sol lu weex def seen ay chemise yu baax yu weex ensemble euh, dina dinañu neex voilà wa faut des faut des pro ko moom yow moom xam naa ni pël nga waaw ku yeewu tamit ndekki sa soow tamit fotol ñu ko baax na on veut daal du blanc on veut du blanc du blanc du blanc du blanc <laughs> merci Craig Khady voilà merci Bassirou Diakhaté euh, Mandal Mangekhar. j'imagine que les ma yor ci ay avec les su blanc euh, toile bi et puis euh, ça va aussi vraiment encourager ces femmes battantes à aller de l'avant et puis elles ne aussi elles sont pas seules dans ce qu'elles sont en train de vivre parce que ce n'est pas facile particulièrement Mme Madame Ba Fatou Matali parce que c'est elle qui m'a contactée elle aussi voilà elle vit une situation pas facile parce que bon que un patriote le Djambar, là, mu en détention moom ak yeneen sœur, ñoo xam ne ñii sax xamuñu sax détenu mais elles se sentent concernées euh, ñoom Catherine Diagne nous xam aussi ce sont des braves dames Nous xam ne ngi combat bi euh, bare na daal ñoo xam ne combat euh, est-ce que du monde allô? bare na ñu nekk ci ci combat bi ñoo xam combat ñoo xam ni daal vraiment euh, ñoo ngi ci combat bi bëgg a jàpp bëgg a jàppale bëgg ñu jàppale leen ci xeex bi donc demain tout le monde en blanc amul nag même ñi nekk diaspora on veut vos sanse on veut vos sanse demain merci Mia hmm, Omar j'ai pas vu ton message désolé j'ai pas vu ton message. J'ai remonté, mais de fois maintenant, de fois maintenant peut-être renoncer à ta question parce que danga ni me répond moi voilà donc nous def on se retrouve demain tout en blanc voilà on se retrouve demain et si euh, tout se passe bien on peut même faire un live en blanc. Voilà, on peut faire un live en blanc, ensemble. Euh, on fait un, live en blanc et puis euh, vous participez, pourquoi pas, en direct. Hmm? Vous participez en direct dans le live. Euh, vous me direz en commentaire ou en identification, bonne heure, game préférez nous def live bien en blanc. Voilà, comme ça, le live, je, je prendrai tous les gens qui sont en blanc. ils donneront leur point de vue. Bien sûr, s'ils sont seulement patriotes et bons citoyens. <laughs> Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci.